nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo mujjee ñëw ci jotaay bi waaye defe naa ñoom ñoo moom jotaay bi sunu waa kër maam Thierno Kandji ne ñoom def nañ délégation bu rëy ndax fa tabaarakallaahu ñi nga xam ni ñoom lañu ci bokkal génération kenn desul Serigne Moussa Kandji ñëw na sànq. sëriñ As Kandji ñëw na sànq di suñu soppe di suñu xarit di nit ku baax fonk ñu ñun ñëpp loolu nekk ci moom moo rogalaat yi sëñ Habib Kandji ak seen rakk yi ñu àndal alxaaji Ahmed Baro ñu tuddee ko sunu maam ak sëriñ Cheikh Kandji ñu dalal leen jàmm kër maam Thierno ne mooy kër moom Ahmed Baro benn kër la ñu ànd ak Serigne Malick Ndiéguène ne bu sama turandoo Serigne Ahmed si sa Ndiéguène ne moom mii moo ànd ak ñoom dalal leen waaye teeru leen Serigne Muniru Malick ne bu sëriñ Malick Ndiéguène mu ngi nele ñoom itam ñëw na ci jotaay bi borom yat ne Serigne Khadim Tandindi di tàggkatu sajjiduna muhammad sëriñ siise mu imam al haji ahmed baro momi tam rotna ci jotay bi ne sunu mbok sunu wa keur mam limamullah ne seydi alasan lay di sët ci imaam saxiir laay ne mom mu ngi ni tew ak seydi hasan salam. ne ku dégg tur ne ne ku dégg tur wow nag xam ni borom def na jaloore bu ne ci àddina ñooñu ñoo ñëw ci jotaay bi waaye bi ñuy yegg si dañuy dajeeg sëñ Babacar Seck nee nag di sët ci sunu maam Ahmadou Ndak Seck di suñu xarit di suñu wëllëre waaye di nit ku baax waaye diggante maam Ahmadou ndaat ak maam Ahmad Baro Njëgeen ñépp xam nañ ni benn la ànd ak Serigne Baba Kunta moom itam cër bii nga xam ni moom la fi sëñ ah, sëñ Babacar am ci ñun moom la am ci ñun moom it di waa Njaasaan kon kon daal fa tabaarakallaahu sëriñ bi ne kontaan na ci seen teewaay yéen ñëpp sëñ Mansour Gaye bu ko defee nga daal di daldi mottali kàddu yi bu ko defee incha allah ñu dugg nag ki bu Boubacar mi nga xam ne moom bis bi di nuyu mbokk yi teew yépp gis nañu ñépp tudd nañu ci seen biir xol tudd nañu leen ci sunu biir xol moo ëpp solo bu làmmiñ ndax kenn ku ci nekk ci ñi teew am nga relation bu nu lié kon ziar nañ ñëpp kontaan nañ ci ñëpp kontaan nañ ci ñëpp kontaan nañ ci ñëpp. Serigne Mansour bismillah Amen.